guy gi dafa mal communiqué ci suñu làmb fay nañ ma nanguwuloo bul attaqué benn structure et puis tooñ GFM parce que du GFM moo organisé combat bi Sénégal Entertainment Group la démembrement bu nekk ci biir Futur Média la mais ça n'a rien à voir avec Futur Média et puis suñu làmb dem GFM tooñ nañ ko. mais wax na ko moom ci yeneen site dem ba attaqué la personnellement. waaw mais man baal naa ko moom bu ma fayul. fayatul je pèse bien bu ma fayatul santatuma ma attaqué waaye baal naa ko parce que ñemewul rek rek da ko ragal. non yaa ngi tooñ nag Lamine guy gi loolay bañ a dégg Lamine da nga xam dama la ne damaa bëgg nga déglu bu baax li ma la wax xam nga ñemewul dit fan lay fan lay amee ñu ne yow kaay bëri ak nit nga ne nañ ma ko jox ma simpi ko ci cinq minutes moom moo wax loolu wala waxul loolu waa lii dafa jar xuloo kay beure bëree dafa jar xulo jaru xulo jaru xeex mais kon lu mou may attaquer waaw mais xëy na baatu ñemewul baatu ñemewul bi nga man m'a wax ni guuy gi ñemewul rek rek mako wax. man Lamine fan nga tek lolou Lamine. parce que le Reug ne vaut pas 15 millions expérience bi guuy gi am regret Reug amu fi guuy gi jaar Reug Reug jaaru fa ñi guuy gi bëreel Reug Reug ak ñom peut-être regret Reug am na mais buñ doon taxaw tay yow sañ nga né c'est l'expérience qui fait face à la jeunesse. Guigui Demba dem ba daan Ama Baldé mii di beure ak euh, Modou Lo couronne roi des arènes te à part coow Reug Reug lan la fi def ci lamb laj naa la ko non lamb na ma lan la fi def ci lamb 13 combats yo yooyu sax man je donne ma langue au chat 5 combats la gis mu beure fi Elton la gis mu beure fi Gris 2 Jordan Akan Akan do xam non do xam ba ça guy gi nag bu nekkee suma rak daanu musul jël avance taw tàgguwuma di ñëw sama kër may dem këram bu ñu koy boole ak man bal naa ko waaye man maa ko wax ñemewoo Reug Reug